mayoon tamit sëñ Kabir benn occasion bu ndaw waaw danañ koy faral di wax mhm. muy ñun bu ñu sañoon ñi nga xam ne sëriñ Saliou moo ñu yar mhm. ñi nga xam ne dañoo nekk ci bërëb yi nga xam ne du bërëb yu ñu war a tudde sëriñ Saliou nañu ñaan ñu ngi leen ñaan ci daroy sëriñ Saliou ñu bàyyi faa tudd sëriñ Saliou ndax sëriñ Saliou moom kenn waru koo tudd ci fu ñuy fecce kenn waru koo tudd ci fu ñuy fay waaye waaye nekk ci bërëb bu ñu dàq way dàq fecc def naka sudul noonu ñu naan sëriñ Saliou ngay jël xaaliss di may Serigne Saliou ya ngay togn Serigne Saliou fofu Serigne Saliou amu fa place Serigne Saliou ci xasida yi la am place Serigne Saliou ci xasida yi la am place Serigne Saliou amul fofu place Serigne Saliou jàng ak yar la man ku xamone lim dacc ay tolam bam nekké tout tànk ba ni mu mat daray caaxaan doo ko woo ci sëriñ Saliou jërëjëf waay kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax yéen ñu koy def bu ngeen ñu déggee na ngeen ci bàyyi xel kenn ku ne am na droit def la la neex hmm. waaye na nga génn ci sëriñ Saliou bu dul loo xam ne lu mu bëgg-bëggam la kon message bi am na solo yaakaar naa ne dégg nañ la te incha allah yàlla mën na cee jaare saafara ko ci barke bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi bég bu baax ci kàddu yi am na solo lool sëriñ maam Ousmane sëriñ Ousmane Sam Ngom sëriñ Ousmane Ngom ñu joxal ma ko micro bi sëriñ maam Cheikh macha allah jërëjëf fa tabaarakallaahu bég nañ loolu wax dëgg yàlla waxal nga kilifa yëpp tabaarakallah kon sëñ Ousmane Ngom moom sama nijaay la ndax sama nijaay Ousmane Ngom ndeysaan sëñ Ousmane bisimilah. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim fas yéene liggéeyal sëriñ Saliou fas yéene liggéeyal sëriñ Saliou si darajee xel koom may ñaan képp koo xam ne nii teew na si jotaay bi. Hmm. ñu dimbalee ñu ngir jëmu Serigne Touba Cheikh Saliou bakke hmm. kenn ku ci nekk wax jërëjëfe Serigne Saliou ñetti yoon. jërëjëfe Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou. liñ si jubloo wax moo di ne. waxuma ku am xam-xam waaye képp ku am xel xam ne. Serigne Saliou mooy koo xam ne. ku xam ak ku xamul. ku nangoo ku bañ. lu fi baax mooma. sëñ Cheikh da ngaa wax wax ju am solo mu tooy ci sama xol lool mooy fi ñuy tudd sëñ Saliou te ko faa tudd yàlla dimbalee na ma ci xaal bu ma mën a nekk boo tuddee Serigne Saliou Mbacke day mel ni da ngaa jël galaas def ko sama xol. ki nekk fu mu warta tuddee Serigne Saliou ko fay tudd nag mel na ni mu ngi ñuy tooñ ci biir loole ñun ñi siy yéem a setal Serigne Saliou Mbacke moom si jëmm boppam moo si njëkk a setal boppam moo waxal boppam ne. ma seere ne diine islaam day ci laa ne te duma ko booleeg dara lu dul moom nag aw ma defar aw ma cag yàq doonuma ca dara lii Serigne Saliou moo ko waxal boppam kon mel na ni képp koo xam ne yaa ngi koy tudd foo ko warta tudd yaa ngi koy tooñ to yaa ngi ñuy tooñ ñi ciy ñaan comme fii day béréb boo xam ne nii lu ñu fi wax day jal to yaatu partout dans le ñu ngi ciy dagaan di ci sàkku rek ñu dimbalee ñu ci loolee ñu ngi koy ñaan